président Macky Sall ci conseil des ministres bu ñaar fukk fan ak ñaar ci wéru novembre bi passé dafa wax gouvernement bi ni leen moom dafa accordé importance bu reuy ci conditions d'existence ni liggéey ci gox goxaan ni manam moy collectivité territoriale lool nak pour mu mën am il faut fonction publique locale taxaw pour mu taxaw nak fokk ñu waxtane ko décret ñu wara jël jël nañ ko Ben, rek ka dess te loolu ci ndigalal président Macky Sall fii ak euh, wér wi di dé dinañ mëna taxawal décret bobu parce que liggéey bi sotti na ce nak bu paré dañu wara déllu wat nak ci base bi ndax fonction publique territoriale gouvernement bi amna ci mais élus yi tamit amna ci wàll manam maire yi ak président conseil départemental ba tax na prévoir nañu def tournée ci Sénégal fukki région ak ñeent yi ànd élus yi ànd intersyndical bi pour ñu waxtaan ak maire yi ak président conseil départemental ak gouverneur yi ak préfet yi ak sous préfet pour que ñu mën implémenter manam taxawal ci gox fonction publique territoriale loolu nak buñ ko defee njariñ lay doon pour askan wi ndax euh, collectivité territoriale niko président Macky Sall concevoir ci acte 3 de la décentralisation les politiques publiques li ñu territorialisation des politiques publiques fofu lay nek manam réew mi mënul jëm kanam té politique yi ñi def au niveau central ñi koy ngank moy gox-goxaan yi eggalewuñ ko fofu ba ñom ñu man ko jël def ko seen yëfu bop le président Macky Sall pour que nous bon donner pour askan